la de lamb la de lamb la de la de lamb la waaw lamb la de lamb de lamb de lamb de ay chamber ay chamber promoteur dañ ka yow yow billahi wallahi taw lañ ko maye fii la du mamal yow waaw nañ ko maye barke alquran bu def tey bu sol nañu def ni 2 minutes defal ni 2 minutes barke alquran mo buddi ko do ko billahi ma xamal barke alquran 2 minutes